mbokki internet yi dal leen nag jàmm Arabi Niass di doom ci kile di Ahmed Khalifa Niass nag moom gàntal na ne du teew fële ci tribunal bu Ndakaaru juge bi la nag nekk ci tribunal de grande instance bu Ndakaaru nag moom moo daloon di dàq àtte bu jëm ci wàllu escroquerie ak abus de confiance ci lu toll ci quarante millions di ñeent fukki millions ci suñu koppar yi nga xam ne nag dox na ci diggante kile di Arabi Niass di doom ci Ahmed Khalifa Niass ak ki nga xamante ni nekk na ab gérant di wéy ci turu Kalidou Sy Mbacké Khalifa Niass bile di Arab Niass ñu koy jiiñ lu mel nag dañu ko convoqué waatoon beneen yoon le 8 mars 2023 bi ñu génn fële ci tribunal waaye moom mi la dafa daal di bañ ne du teew ca tribunal ba dàq lu ñu mel ñu ko benn yoon loole nag nekk li nga xamante ni mën naa wane njortees ne moom mi nag dafa am volonté ngir bañ a mën a fay ki nga xamante ni moo di Kalidou Niass li nga xamante ni moom la ko yoreel moom la koy jiiñ ba yóbbu fële ca tribunal ba mbaa ki jàppee ne mbir mi mel nag wàllu escroquerie ak abus de confiance euh, bu nga xam ne am na ci diggante Arabi Niass bu ni mel ak kile di euh, Kalidou Sy moom Arabi Niass nekk doom ci marabu politicien bi la di wéy ci turu Ahmed Khalifa Niass mbokk yi laaj bi samp nag mooy kile di Arabi Niass nag. moom ku mu yëpp moom doomu Ahmed Khalifa Niass Guindé gannaaw bu nga xamee ne nag daal di dëggal wala sax demoon na ba nangu tuuma yi ñu koy teg fële ci brigade de recherche bu Colobane moom ne nag fi mu nii la koy convoqué ci tribunal na te du caay teew ñoo ko jàppale ko ñetti ci yoon nekk na lu ko convoqué fële ci tribunal grande instance bu Ndakaaru pour mu yëgati ay kàddu maanaam jéemal indi ay leeral ci mbir bi nga xam ne moom lañ koy ji mu dox ci digganteem ak Crédit Calduci moom ne di Arabi Niass nag dafa daal cinquante ñett yooyu yëpp amul benn yoon bu nga xam ne teew na fa ci tribunal ba kii daal avocat am nag sàkku ci euh, juge bi nga xam ne moo yor dossier bi mu daal di dàq seen àtte loolu ñu ngi ko bi beneen dàq maanaam beneen renvoi loolu juge bi koy nangu loolu nag moo coïncide woon wala moo toll woon ak niki démb àllarba juróom-ñetti fan wala sax niki barki démb ci àllarba ji juróom-ñetti fan du 8 mars 2023 bi la ñu nekk juge boobee nag. daal moom gannaaw mu préciser woon nag boobu moo nekkoon renvoi bu mujj jëm ci procès bi nu mel nag moom Arabi Niass nag euh, li ko waroon donc moo doon mu présenté ci tribunal bu ñu mel waaye moom mujjut caa teew ga donte la sax juge bi waxoon na avocat na ko boobu mooy renvoi bu mujj kiliyaam euh, du euh, gën ci moom mooy mu jëm a teew le 8 bi ñu dëgmal loolu nag amul beneen bu nga xamante ni moom ñu di Arabi Niass di doom ci Ahmed Khalifa Niass def na ko ndax dafa bañ gàntal teew fa li nga xamante ni moo di ca tribunal bu Ndakaaru jamono ji la nag lii di partie civile moom mu ngi xaar ñu delloo ko xaalisam di xaar aussi Euh, justice bu réew mu def li nga xam ne mooy liggéeyam lii di procureur nag ak avocat wu partie civile bi ñoom ñu ngi sàkku ci yoon mu def liggéeyam na mu waree décision bi nag ci mbir mu ni mel ñu ngi koy xaar le 22 mars bi li nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye lu ci mënta xew daal kile di Arabi Niass nekk doom ci Ahmed Khalifa Niass ñu koy jiñ lu jëm ci wàllu escroquerie ak abus confiance bu toll ci 40 millions ki koy jiñ nag du kenn ku dul ki nga xam ne moo di Kalidou Sy nekk ab gérant moom mi la nag di Arabi Niass euh, ko gannaaw bi ñu ko njëkk a déglu fële ci tribunal wala fële sax ci section de recherche bu nekk sa Colobane moom o nay nangu li nu mel Euh, defoon na ay ci mbir mi nga xam ne moom la ñu koy jiiñ waaye nag depuis booba daal ba saa ñu ko convoqué fële ci tribunal grande instance bu Dakar ci kanam juge ngir mu jéem a àddu ci mbir mi ni indi ci ay leeral ngir ñu jéem a àtte li dox ci digganteem ak ki xam ne moo di Kalidou Sy yoon mën caa def liggéeyam jëlub décision moom dafay daal di gàntal yu ni mel dàq dàqati am na ci mbir mi ni mel avocat am sàkko dàqu nde teewut mu sàkko ne teewut juge bi bi doon bu mujj muy renvoyé mbir mi ni mel moo nekkoon le 8 mars bi nga xam ne moom la ñu génn waaye nag moom la di Arabi bi match xam ne moo di ci tribunal bu Ndakaaru des nag fi ñu toll nii xaar décision bi nga xam ne juge bi nee bi li ñu dëgmal lan diggante ab gérant entreprise di ci turu Kalidou Sy ak ki nga xamante ni moo di Arabi Niass nekk doom ci homme politique bi de nga xam ne xame nañu ko fépp ci Sénégal ràññee ko fi lool di wéy ci turu Ahmed Khalifa Niass nekk aussi un marabout waaye aussi homme politique ràññee ko lool ci espace public bu Sénégal moom Ahmed Khalifa Niass nag di wéyjur ci ki nga xam ne moo di Arabi Niass mi ni nga xam ne nag moo nekk ci ab affaire de justice bi ñu koy toppee nekk ci digganteem ak ki la nga xamante ni moo di. Kalidou Sy doom ja nag di Araby Niass suñu ko convoqué fële ci tribunal rek mu daal di koy gàntal du fa teew ba ñu dàq procès bi nu mel ñaar ba ñetti yoon loolu nag waral fi ñu toll nii juge bi ba mars bu ñu wees moo doon dàq ba mujj la ca waroon ci ab client comme na ma ko waxoon ki avocat am rek moo di mu teew ca lu ñu mel le 8 mars bi nga xam ne moom la ñu génn loolu nag Kalidou Sy defal ko benn yoon ndax teew ca fi ñu toll nii nag li ñuy xaar ci nga xam ne mooy ci xibaar ne décision bu ñu mel diggante Ahmed Khalifa wala sax diggante ngeen baal ma doom ja ci Ahmed Khalifa Niass di arabi Niass ak kii di Kalidou Sy ci cette affaire escroquerie et abus de confiance bu toll ci quarante millions ñeent fukk ci ay millions ñu ngi koy xaar le 22 mars bi la ñu dëgmal 22 mars nag fa la ñuy xamee fan la wananti di mujjee ki gëtëm diggante Arabi Niass ak nga xam ne moo di Kalidou Niass ci mbir mu ni mel lu toll ci 40 millions d'euros gannaaw bu nga xamante ne convoqué nañ ko ca tribunal ñaar ba ñett yoon moom mi la di Arabi Niass mu daal di gàntal teewam foofee mbokk yi jaa ngeen jëf foofu la ñuy jaaree di leen jox dig daje léeg-léeg ak yeneen i xibaar mbokk mbokk yi ñu toppal leen